Ndufaay antiguérisseuse soxna na fi fàllu fàll di borom xam-xam bi yàlla baaxal ci wàllum seet dalay seetal ci alxuraan ndox euh, suuf waaye yamul ci loolu yow mi bëgg bayra yow mi nga xamante ni nag dañu laa sànni kortu góor ak jigéen yi nga xamante ni dañoo bëgg sëy yow mi ne ci diaspora bi bëgg li nga xamante ni moo di kayit waaye yow mi bëgg raxas sa yaram ci eau miracle bi nga xamante ni nag soxna na fi fàllu a euh, yor na ko waaye yamul ci loolu yow mi bëgg ci ndomba yu baax yi soxna na fi fàllu fàll maa nga ak moom ci numéro yi ma lay bëgg a jox 77 551 34 82 wala nga woo ko ci 77 033 37 83. salaamaaleykum ami internet salaamaaleykum yéen ñi nga xamante ni yéen a safoo Sénégal Buzz 221 dal leen ak jàmm euh, ma seet ci suma papa suma xarit suma maam doon koo xamante ni euh, liñ naan mag mat naa bàyyi cim réew mu ñu war a waxtaanee li nga xamante ni moo di actualité war a li nga xamante ni moo di làmb war a waxtaanee aussi tamit jafe-jafe yi nga xamante ni làmb amoon na ko ñu gis ni mi ngi commencé am changement euh, papa maa ngi lay chaaru baax a baax di la jox sa wàccuwaay. jërëjëf. Memphis ginaaw bu ñu sante yàlla julli ci Seydina Mohamed sant Xaadim Rasul maa ngi nuyu suñu bokki téléspectateurs yi jàkkaarloog ñun ñëpp di ñu seetaan eh, rawatin nag yéen waa Sénégal Buzz nga xam ne ay xale ngeen yoo xam ne eh, li leen yëkkati rek mooy seet li ngeen liggéeyal réew mi mm-hmm. waaye xool leen leen lu leen réew mi liggéeyal mm-hmm. kon xale yu mel noonu bu ñu àndee taxawal structure mag mu mel ni man wala ku demee ni man war naa mën a wax xale yi loo xam ne leson lay doon ba bu ëllëgee buñ koy nettali duñ ci jóom mm-hmm. moo tax maa ngi lay dalal ci jàmm nga fekk ma nañ ci kër Pape Diop Mbër mm-hmm. euh, muy sama frère di sama xarit ma tëgg carrière am yëpp ca ba ci arène tëggal Boy Niang numéro un Mbapat ba arène tëggal Mansour Diop Mbapat ba arène tëggal Balla Bey numéro deux Mbapat ba arène keroog bu ma tëggalee Njaga Diop doomi Pape Diop laa damm galan yi nag ne bàyyi naa tëgg yor micro central pendant trente kon maa ngi leen di dalal ci jàmm. Euh, papa gannaaw bañ la siyaare ñu gis ni làmb bi saison bi tëj na waaye li saison gi tëj yëpp ay combat yoo xamante ni ay combat yu mag a mag a mag taxaw nañ ñu gis ni làmb ji instant bi mën nañu amaat yaakaar ni sponsor yi dinañ jël ci waat gannaaw bi saison bi tëjee jërëjëf xam nga da ngay làmb sam kaang làmb ñun lañ ko fekk mm-hmm. te lu mag ñi samp saxal ko buñ ko suuxatee yàlla mën naa def mu jibbi mag ñi làmb bu njëkk buur a ko daan bëre boo looloo tax ñu naan mbër laadum di nga xar yëpp laadum la ci gën a cher mbër laadum la parce que buur a daan bëre wala doomi buur ñu dem ba nga xam ne mag ñi def nañ ko feet muy fet boo xam ne heure bu clair de lune amee xam ne booba mag ñi ci weer wi lañ daan amee leer bu lëndëm jotee day lëndëm këris mais bu leer gi amee nag euh, dëkk bay dajaloo ñu seet xale yi xale yi bëri ci seen biir kon aadala ak cosaan buñ fi fekk mm-hmm. mag ñi nag téye woon ko defe ko ak njàmbaar ak fit mag doyoon na leen gox bi maa fi man rek doyoon na leen mhm. ba ma dalee bëre ba nëg ni sama loxo ma salaal suuf mhm. doyoon na leen mhm. muy njàmbaar googu ñu daan wone mu doon xulle musul daanu benn yoon la masa daanu ci làmb jéeri Sadio ko daan te jéeri Sadio law bu daan yett la law be bu daan yett ay sabar parce que dafa am doomu aadama yu bari yoo xam ne Euh, liiruñu làmb te làmb ki ko liir mooy ki nga xam ne da da da da da daf ciy def stratégie stratégie boo xam ne euh, ci biir bëri dafa cay am parce que am na mbër yoo xam ne da ngay dox seen kaw daan leen am na mbër yoo xam ne dangay ngay arrière daan leen am mbër yoo xam ne dangay ngay doxe wet daan leen mais bu fekkee ne mbir moo jàkkaarloo rek yaakaar ne da nga war a dox ci kawam saa yooyu daanu dalay bett looloo tax mag ñi wax ne euh, bëre kaamil la kaamil nag euh, dafa rëy ndax page ya day bari bëre dem na ba mille page kenn mënu kenn mënu wax ne bëre ña ñaata page la mënu ko mënu la ko wax parce que liñ ci xam ñun te loo ci wax fukkam mën naa nekk sukkër bi xatar bi wéele wéng kolma nooju mboot kal padd riñaan loolu ca xabalu biir ak bu biti tequm biir ak tequm biti te bu ci nekk mat na diis kon lamb pour mokkal ko day jafe moo te bés bu na nga gis mbër mu daan mbër mu ko man loolu loolu tamit dëgg la mais ak fi fi làmb toll ñu yaakaaroon ni làmb actuellement nii euh, euh, li ci li ci li ci daan am yëpp perte nañ ko sponsor yi ñëwatuñ woon mais fii nga xamante ni saison bi tëj na ñu gis ay làmb yu mag taxaw ki nga xamante ni euh, moo di Bombardier ak tafaatin Tine Balla Gaye war a bëreeg Boy Niang Balla Gaye war a bëreeg ak ki nga xamante ni moo di Eumeu Sène euh, euh, nu mu tudd sax Gris Gris Gris Bordeaux war a bëreeg Ama Baldé Sa Thiès war a bëreeg ak ki nga xamante ni moo di Reug Reug combat yooyu tey jii ñu mel ni làmb espoir war nañ amaat yaakaar ni làmb dina dekkiwaat. noonu làmb dina làmb du dee bëgg a rey làmb ndax sunu aada la sunu cosaan la footballeur yeeg basketteur yeeg ñëpp ku ci bëgg fond de caisse làmb ngay tëgg kon ku bëgg xam sa bopp da ngay dellu ci sa cosaan ku sa cosaan réer doo xam sa bopp làmb tey am nañ ci yaakaar joo xam ne yokkute lay doon waaye du nekk wàññeent lii nag war na motiver mbër yi man mbër laay wax jege bu làmb yàqoo géwél yuy tëgg lamb ji dañuy dem tëggi feneen mm-hmm. ñun waxkat yi di wax ci biir lamb ji dañuy dem waxi feneen mbër ma jaaxle mm-hmm. mbër ma xamul fu mu jëm kon mbër yi war nañu seetaat seen bopp ci ñaar supporters yi leen di supporter ak accompagnateurs yi mm-hmm. loolu rek a taxoon sponsors yi daw sponsors yi kenn dàqu leen ku dul yi ak accompagnateur yi léegi nag bu fekkee ne kenn ku ci ne mbër mu ci ne di nga wax say accompagnateur ak say supporter ne leen fii ma jëm mooy sama place su liggéeyukaay falaay ame as tuut kon ku ma fay àndal indil ma jàmm d'abord mooy yoon parce que bu jëkk ak léegi li am bokkuloon mm-hmm. euh, ay amateur amoon ngay supporter Robert kii di supporter Boy Bambara kële di supporter Fallay Balde may supporter Bekaay Trois wala Mbaye Dia lamb am moom mii woote parce que moom mii ma jàkkaarloog moog Pape Diop a bokk ndey ak moom lañ tuddee Alaaji Malick tey mu invité ñun ñëpp ñu bokk añandoo naanandoo njar sol sol sunuy mbubu dem làmb ja yow mi nga xam ne xar ñoo ànd mhm. yaay dagg billet yëpp mhm. yow yaay jënd boisson yi ci biir mhm. ngeen waxtaan léegi li bu fekkee ne sama mbër ak sa mbërey bëri dañuy werante mais bu ma bu sa mbër daanee sama mbër damay nungu parce que lamb il faut mu am ku daan il faut mu am ku daanu ku bañ a daanu bul takk ngemb ku takk ngemb daanu léegi nag xale yi ñoo ñoo war seetaat ne bu ñu bëggee suñu culture bi muy sport de chez nous la mhm. ñoo ko moom mhm. tey boo wëroon monde bi bëre ak dóor amul fenn ci àdduna fu dul Sénégal mhm. takkoo gant solo protège yoroo dara lu sa léegi sax lañu takk protège dent mais bu jëkk protège dent amul bu jëkk da nga daan def nit ba ñuy wadd nga dóor nit arkatam xotte ko lu ne am na ci làmb Alaaji Abdourahmane Ndiaye Falang eh, eh, dóor nañ ko bëñ ba bañ ba bañ ba eh, damm mhm. mu lokk mhm. bëre ba daan yàbbi bañ bi joxe Moustapha loolu da Moustapha Gueye def na ko fi mhm. ci biir làmb bañum damm ci biir làmb mu lokk ko bëre ba pare yàbbi bañ bi kon nga xam ne mbër njàmbaar la ak fit te xale yi moytu aussi dinaa leen wax ne bu fekkee ne ku ci nekk sa carrière bëgg nga mu mu mu mu yàgg nga am dara ci làmb ji bul jël sa lépp wekk ko ci sëriñ premier sëriñu làmb mooy entraînement fajar du jot nga takk say dal daw di wuti doole ngoon jot cinq heures nga takk say dal dem di wuti doole dem ba am bés yàlla di la xañ coono booba nga daan am mais da ngay gis mbër mu indi téeméeri butéel ñu boole ko butéel ya buddi dóor ci suuf bés bu ne noo ko bés bu ne ma ne dimanche bu ne sëriñ fan mhm. ñu baal ma ci wax mhm. euh, mais ñu gis euh, làmb ak fi nga xamante ni foofu la toll sunu papa Bécaye am euh, magam bu génn àdduna ñu gis axlu làmb yëpp dem fa teewal ko ñu gis ki nga xamante ni moo di Gaston bee ngi ca bës boobu ñoom ñaar seen diggante mu mel ni rataxaat na da ñoom duñ tàggoo mhm. garçon euh, wax naa ko dem bi ma jëlee kàddu ca dëj ba wax ne ñun communicateur traditionnel yi garçon mii toog ku mu ci ku mu ci defalul taraanga amul ku mu ci seqalul taraanga amul nit nag boo bëggee ànd moom seen ànd yàgg bul ko jàppee jukkoom jàppee ko sa jukko Bécaye Mbaye dix ans ngi nii ñu ngi liggéey maak moom keroog ba mu ubbee rajoom daf maa woo ma ñëw mu ne ma grand ñoxo ma ne ko ah mu ma rajo baa ngi nii sa sa loxo sa juróom-ñetti at laa jël rajo ba ñëpp naan FM FM Sénégal mu ubbi télévision muy Bantamba TV ñaari émission laa fa am bu ne maay def émission boo xam ne ci lambi démb lay doon mm-hmm. le mercredi ma def en direct. yoonu ndaw waxi mag mhm. parce que am na xale yu bëgg dégg mhm. mais mag ñi wax ngir yàlla ñoo bareetul mhm. parce que mag ñi ci bari dañ leen a waxloo ñetti waxkat rek am ki ñu waxloo ki war wax ak ki wax war ki ñu waxloo bëgg-bëgg ko waxloo lay wax mbaa dootul wax waaye yow ñu bàyyi métier yëpp choisir waxkat ne waxkat laa bëgg a doon journaliste na nga ba li ngay wax nga bañ cee juum bopp bu ëllëgee nga naan jéggal leen ma ñun ñi wax war te mag leen fekke lu ngeen fekkewul nañu fexee ba lu ñu lu ñuy wax mu tegu ci euh, euh, luy defar bañ a yàq luy ñaw ba a xotti waaye lu tegu ci dëgg mag ñi wax dëgg ñoo bariwul te ko wax dëgg léegi ci réew mi doo bari sopp mm-hmm. dañ naan paa bu nii loolu nag ñun waxkat yi ñoo suñu part de responsabilité la dakaay nang amul problème man xam naa ko Gaston itam li mu def démb billahi wax naa ko Abdoulaye Ndiaye nee naa Abdoulaye Ndiaye pour la jëwoon te sëñ Fàllu te sëñ Abdoulaye liggéey ga waaye dajale ba woon te sëñ Abdoulaye ñett ñoom ñëpp mu ngeeg yow dakaay làmb mënatu la dem bàyyi ko. Mhm. ñun ñoo ko jiitu ci làmb. Mhm. li ñu xam ci làmb ba kay xam ko. Mhm. mais moom la yàlla def ni mu ko def def ko li mu ko def. adduna bépp nungul ko ko. parce que mooy li ma la wax léegi rek ba kay dafa yaru. amul problème. mais Gaston itam def na euh, euh, grandeur. liy grandeur mooy maamam. ak ay bokkam. kenn ku ci nekk bu ñu tey ñibbi woon waalo te bokkal mu am lu bari lu mu leen jox mm-hmm. bokk ci famille bu baax waaye doom aadama da nga koy comprendre mm-hmm. mais acte bu mu def dem daal acte noblesse la parce que doomu aadama bi ak lu ngeen man di seq mm-hmm. ba génn ay paaka sa kenn ku ci nekk pour teg paaka sëppatu morom boo amee naqar na nga ko bokk ak moom moo tax ak acte boobu mu def dem man de en tant que ñoxo bay en tant que micro centrale de l'arène bëgg naa demb ak li may nekk-nekk ci naqar parce que ku ñàkk ku mel ni mbay Mbaye dañu xam ne mu meloon ci communication ma xam relation bi ñu seq man ak moom ba mu jël doomam Papa Gueye ne ma kii maa la ko dénk damay def bu may def émission damay woo Papa Gueye ne ko kaay kon yaakaar naa ne lu mel noonu mm-hmm. bu amee démb képp ku bokk ci làmb commencé ko ci le président de de tous les communicateurs traditionnels mu El Hadj mm-hmm. am na ci mbégte promoteurs yi mm-hmm. am nañ ci mbégte mais amateurs yi ak supporters yi ñoo ci raw mm-hmm. parce que Gaston la yàlla def muy tëgg les grands événements kon ku mel noonu bu amee un grand reporter bu ñàkkee ci lamb ji rek day feeñ mooy keroog lañ daloon rek ko Bombardier Balla mm-hmm. ñëw ñu ca làmb ja maag Ipo mm-hmm. mais moom Bécaye moo jëkk réclamé xanaa làmb ja amul micro central mm-hmm. parce que ku ne yàlla dafa am lu mu la may ah Bécaye yàlla dafa am lu mu ko may Gaston itam di nit koo xam ne ku bëgg ci kàttanu yàlla ak ak ku bañ nit la ko xam ne billahi wallahi wa amul problème lu mu la wax xoolal man gën a jàppante ni léegi mu wax la lu ko neex mais jigéen bu génnee deux minutes barke Seydina Mouhamed yàlla def na ci xol bi loo xam ne fàtte na ko kon loolu contentement waa làmb yëpp la euh, di contentement képp koo xam ne rek bëgg nga làmb jëm ca kanam mooy li la wax rek pour sponsor yi ñëw il faut ñu defaraat làmb ji niñ koy defaree ci anam yëpp ku ci ne jox la mu moom bu ku ci ne yoree la mu moom dina ca def lu ñëpp gis mhm. mais koo jox lu mu xamul mu def ci erreur. def ci erreur loolu d'accord naa ak yow papa mais làmb yi nga xamante ni tëgg nañ ko ñu doon mu doon loo xamante ni bireef rek lañ ciy def mooy ki nga xamante ni moo waree ba rek euh, Boy Niang Balla Gaye Boy Niang boobu tey bu doon yaay yab Boy Niang lan la war a bëree ci combat bi mu doon loo xamante ni parenthèse bu ndaw lay doon. yow dag dugal foo xam ne <laughs> dafa doy waar xam nga en tant que microcentral uh-huh. ñun bu ñu analyser sax ñu yaakaar ne dañu far mm-hmm. mais combat ngi noonu boo xam ne yombul ci ñaari côté yëpp mm-hmm. du yomb ci Boy Niang mais du yomb ci Balla mm-hmm. parce que champion bu ne yaa fi jële ku génne Yékini lamb du Balla Gaye euh, Mbaye Gueye bi mu tolloo ci digg ndënd yi duba ko daan nga xam ne garab kon ca kaw lay fekkantee euh, Balla Gaye nag dafay mbër moo xam ne dafa naqaree àtte parce que su nga ku la raw mu ngi la rawee ci way jur te tànk yooyu mu nekk ci la booy ñaane tànk yooyu mu ne mhm. bala Gaye dafa fonk way mhm. na papam jàppale na papam ba yóbbu ko barsax mhm. yor yaayam yiir yaayam dëkkal yaayam ba tey macha allah mhm. noonu la booy ñaa def booy ñaa itam jom jooju la am kon buñ dee xool seen ñaari jom daanaka ñoo bokk jom mais nag euh, bu booy ñaan naagu mhm. bu Balla gay ne maa man booy ñaa mhm. parce que diggante diggante Balla gay Gris Bordeaux bii bërki dem mhm. man dégg naa ci lu ne waaye ñoom ñaar ñépp kenn jegeñul ci jeexal te xale bu jël boo deful attention ñu toroxal la yaa ngi may dégg booy ñaa nag day liir làmb dafa yor jukkoy Papa Diop dama ne senegal ba senegal daj man ñoo ko bàyyi maa ko wax Papa Diop ci dàq bëri géewal naa ko mbapat géewal ko arène fu ne moo tax un grand sportif bu mel noonu représenté senegal ci alam fu ne indi fi façon médaille bu ne bu demee ba tëdd ah wallahi réew mi war na koo jàppale ministre sport war na ko jàppale le président de la république war na ko jàppale parce que jóge na Algérie ñëw keroog ba muy ñëw ay beeke la yor parce que ba muy ba jël euh, médaille d'or ba ba mu mbootee ba mu mbootee euh, waa ji tànkam dafa surux ñu plâtré ko mm-hmm. mais bi mu xëyee dañoo bind ci journaux mais le jeune champion Pape Diop de Pikine est rompu aux techniques et à la lutte gréco-romaine. Pape Diop est venu avec un pied plâtré mais la tête haute ndax moom rek a indi médaille d'or kon ku mel noonu bu demee ba tëdd réew mi war nañ ko war a mën a jàppale. làmm nag àgg na boo xam ne Séné waxuma Sénégal mais àddinaa bëgg làmb mhm. bu làmb amee muy États-Unis muy France. muy Italie muy Allemagne muy Espagne ñëpp Sénégal la ñuy jàpp di seetaan làmb kon boo amee culture bu mel noonu muy sport de chez nous parce que làmb rek moo boole sport culture bo xoola pecc mi ci biir làmb xoola woy ci biir làmb xoola xoola ambiance bi ci biir làmb loolu culture la mais nag bi mooy bëri bi xeex bi sport la bëre bi jàppante jaayante doole indit ay prise sport la kon sport bu ànd ak culture seen àdduna bépp bëgg ko nañu fexe ba toilette ko bés wu ne nag saa yu ma yoree micro central li may jëkk a wax toujours xale yi mag du yàlla mais dafa yàgg ak yàlla toujours ma joxe leçon de morale fu ne jooy nañ fa lamb jooy nañ ko le président Senghor jooy nañ ko le président Abdou Diouf jooy nañ ko le président Ablaye Wade mu am yéene pour ne mu wutal ñu pochette bi président Macky Sall ñëwee fii ñu def arène nationale xanaa xamoo ne lieu historique la mm-hmm. fii ñu mm-hmm. historique la de mm-hmm. xam lu tax mm. toolu xare la woon moo tax ñu defa xare ba nëkk ne dañ fay xare moo tax mag ñi lu ñu la wax rek ak lu ñu def rek am na lu mu am na lu mu lu mu firnde toolu xare nga yóbbu fa xarekaay ah le 8 février 1834 Matar si la xare Jóob Ngoone Mbeng yaay jal fii la daanu mhm. foofu la daanu te moo doon sëriñ Ndakaaru mhm. mu ma di farimata borom di maag gilam ga mhm. la daanu maami ñii maami nga jaañ sama maam man maam ma njaayi penda joojo foofu la daanu boo gisee géer ak géwél daan ànd géer géwél bi bu ñu àndee bu ñu mayee géwél bi mu téye bu géer ga mayee la muy mayee ba mu jeex mun a géwél bi geesu géwél bi géwél bi yëkkati lañ ko may jox ko géer gi mu maye ko ñu ñibbi loxoy neen léegi géwél boo ko def doo ko gis mhm. moo tax man damay wax toujours ne communicateur traditionnel la amul dama ne képp koy wax wolof di indi culture rek communicateur traditionnel nga man na géewal laa waaw du ma géewal de géewal laa <laughs> képp ku ñuy géewal nag mhm. Mhm. te mënoo faa joxe xam-xam boo xam ne doomu aadama yi nañ fa nañ ci jariñu mhm. doo géewal léegi nag ñaan katam boo ko mayee mu tagg la boo ko may mu xas la mais li Victor Hugo ne nous sommes les héritiers de nos ancêtres nous griots les associés de ceux qui vivent et la providence de ceux qui naîtront loolu moo ma dal Louvaye antigraisseuse soxna na fi fàllu fàll euh, di xam-xam bi yàlla baaxal ci wàllum seet euh, dalay seetal ci alxuraan ndox euh, suuf waaye demul ci loolu yow mi bëgg bayra yow mi nga xamante ni nag dañu laa sànni korte góor ak jigéen yi nga xamante ni dañoo bëgg a sëy yow mi ne ci diaspora bi bëgg li nga xamante ni moo di kayit waaye yow mi bëgg a raxas sa yaram ci eau miracle bi nga xamante ni nag soxna na fi fàllu fàll yor na ko waaye yamul ci loolu yow mi bëgg ci ndomba yu baax yi soxna na fi fàllu fàll. ma nga ca wala nga jokk